aca maa lay fay Modou waaw waaw di leen ko jaar rek di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yaram te xaru ko aljana Moussa moom suñu Moussa ñun ñëpp mbokk la am di jàmm la ku baax la loolu waral ñu teew fi pour ñaanal ko yàlla yàlla yaram ko xaru ko aljana waaw loolu waaw dëgg yàlla Moussa Gueye li ñu leen mën a wax ci moom bari na waaw xam nga bet nañu dem na dem na nañ ko ñaanal yàlla quoi loolu la res nag nañu bàyyi bari joon suñu kilifa ñun ñëpp ci bawol xam nga mu mot li daal wax yi dina diis trop nag mais nañ bàyyi mu mot li daal. mais ak euh, Moussa Dioum. lépp la woon lépp. jërbaat la suñu kër lépp la woon mbokk la daal wax dëgg yàlla. vraiment ñu koy jàll àdduna bi yëpp di ko jàll moom du làmm di ko jàll ay supporteurs am ay fanseem ak yëpp xamoo di ko ñaanal yàlla daal yal na ko yàlla yërëm xara ko aljana bi jaay Seydina Mohamed lool daal la am lu ma ci wax wax dëgg yàlla. ok mbër bi nga yëgee tiis bi naka la la def ak uh, yan kàddu moom moo la gën a marqué ci ki nga xamante ne moom moo di Moussa. waaw comme ni ko ñëpp yëgee laa ko yëgee rek waaw mu doon bés bu metti bés boo xam ne ne xëy na ñu waa Bawol moom dootuñu ko fàtte quoi wax dëgg yàlla mm-hmm. franchement. li des daal bàyyi leen ba rajoon mu egli quoi franchement. jërëjëf mais na gis nañ sa open press ak euh, jouru combat lu bawal xew la rek ñoom ñëpp day ñëw tax ci rëpp du du ci du ci am xaar ma yàlla kenn quoi. waaw moom noonu la mel maanaam ñëpp la yemale daal wax dëgg yàlla yéene ñëpp jàmm man loolu laa xam ci moom wax dëgg yàlla dama koy ñaanal daal yal na ko yàlla yërëm waaw wax dëgg yàlla franchement